mandat bi su taxawee na xoolaat liggéey bi parce que il faut mu xool dëkk bi parce que dëkk bi population bi sonn lañ sonn nañu te dëkk bi ñu am diplôme bëriwul dëkk bi sécurité sonn nañu surtout vigiles yi sécurité yi si société yi caissières yi serveuses yi dëkk bi ñëpp sonn na yokk salaire yi ñooñu. na xoolaat man loolu laa am lu ma métti si réew mi parce que ñuy liggéey mënuñu am xaalis. parce que tey su salaire nga fay gardien quarante mille. loolu laay ñaan président mu xool ñuy liggéey ci réew mi salaire yi mu yokk ko parce que xëy quatre heures du matin weer bi dee doo am loo fay sa loyer lépp mu yem ci transport nga jënd ko ci restaurant dund bi métti na nit ñi sonn nañ man loolu laa am lu ma président Macky Sall na yokk gardien yi sécurité yi vigile yi jigéen ñi ñi mindaan yi ñëpp ñu am salaire ku nekk di gis boppam ci réew mi. man loolu laa gis loolu moo manqué si réew mi parce que nit ñaa ngi liggéey di am jom maire yi jigéen di daw te kenn mu ba weer bi dee sa salaire sax mënul fay sa location te moom tam aussi amatul dara lu muy trouver amatul dara xoolal soo jaaree VDN gis nga autoroute bu bees bi loolu Ila Touba yooyu Macky moo ko mais état continental la yooyu yëpp Macky moo ko liggéey mais Macky mu ngi def lu mu mën Macky amul caaxaan. mais lan moo tax nit ñi aussi Sénégal kuy liggéey dañ koy wax mu ngi liggéey mais kuy liggéey mu ngi liggéey ñëpp ñu ngi siy teg seen bët mais yow doo non non na diw na fi jóge rek diw na fi jóge diw na fi jóge non non du yàlla ko fi teg il faut nit ñi gëm loolu xel si are yi yu ñuy romb doomu aadama yi nañu jàppalante suñu jàppalantee réew mi day neex président sax du ko yëg mais nit ñi tànke seen xol yaa ngi ñuul kenn buggul kenn am kenn du bëgg a dimbale kenn koo gis sa bopp sa bopp billaahi wallaahi du ñu dem doo ngay sonn si àdduna di nga sonn àllaaxira parce que yàlla moo wax nañ dimbalante parce que fii lépp ay jeex ku ku nekk sa bës day ñëw ku nekk da ngay dee kon boog nañu jàppalante di romb sa morom yaay si tali bi di romb sa morom papa si tali bi di romb say morom doom si tali bi taxaw suba ba ngoon yow nga tëj sa veeru oto nga yor sa oto mais xanaa moo accident yi bëri yi xam lu ko waral bit leex wala oto saraxam maam Abdou Aziz daana ko wax saraxam mooy kër lan mooy saraxam mooy néegu gan mais yooyu yëpp léegi amatul nit sa sarax mooy naafila ngay naafi la loo gis dafa am sarax accident yi bon yi yëpp soo yóbbu nit yàlla dala si musal il faut nit ñi gëm yàlla ñu dimbalante man loolu laa wax il faut ñu jàppalante boy su loolu dëkk bi du dem. man daal moo de la fin bi mooy daal nañu gëm yàlla ku fi yàlla teg nañ ko nangu man daal ñëpp laa bëgg senegal bañu ma kenn iñaanewu ma kenn soxorawu ma kenn képp ku yàlla lépp lu nit di def si lu baax yàlla na la yàlla jàppale man maa ngi jaay samay jën ku ma woo ma wuyu la livré la si jën yi baax foo nekk yaa xam France nga nekk yaa xam Espagne nga nekk nga bëgg sa yaay sa papa ñu jox ko jën fii ñu joxal ko jën ñu waas ko moom jot saa yu ma gisee fay ko wala nga def virement ñu fay la ñu yóbbu jën yi ba mu nice man daal loolu laa fi nekkee waaw sama numéro téléphone 77 701 59 22 beneen numéro bi 70 la 701 59 22 kontaan merci beaucoup.